الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بجلتي نقول الحمد يعني الذي يعني هو أن تتمام بجلتي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب العالمين يريد منه nuyoo bi gën a sell nuyoo jullit ak moromam di sant ci daje bi di leen ci ndokkeel taxawaay bi di bëgg seen teewaay moo di daje ngir yàlla di fàttalante yàlla di fàttalente lislaam di fàttalente lu ci suñu kanam te du jaas te fu nu mën a jaari rek aw ca benn bunt kenn mun la teggi kenn munu koo tëb kenn munu ko woon gannaaw waa waxtaan ni mu ngi jëm tey ñu ko ko waxee daf ñëw nango am fen ay islaax rek fàttalante doomu nag suñu borom daf ko sàkk indi ko ci ko suuf xam ne daanaka doomu aadama tax ñu sàkk suuf histoire suuf lu gudd la ñu ci jëfandikoo rek li ñuy wax al mujtama ñu ci waxtaane tey al mujtama lan mooy société ñu xamul ci arab lan mooy société lan moo koy defar lan moo koy yàq ñi nekk société bi luy seen mbir société bi mooy fi jaar jëm ci suñu borom te fi ñuy sukkandiku kon société di mbooloo moo dañoo dajaloo ci biir ci kaw suuf. sëriñ la wala nekk ay mbooloo yu ay mbir boole ay mbir wóotale leen ñu bokk fu ñu nekk war fa dund am diine xam ne duñ fa bokk sax ñoom ñëpp loolu tax ñu war a seenu nekkin ci bërëb boobu jiital li yëwëral seen diine ñëwëral seen mbiri àdduna ak seenu nekkin mu di leen kon al mujtama al mujtama kon société bi loo xam ne bu jekkee jub mel ni mu war a mel ñëpp texe àdduna ak alax bu yàqoo lépp yàqu société nag gannaaw xam ngeen ne nit ñi fiy daje xeetu nit bu nekk xeetu xel mu nekk xeetu xol bu nekk xeetu defin bu nekk xeetu gisin bu nekk ci mbir mu mu doon ñu mel noonu ñoo fiy daje kon ci wuute yu bari yooyu ñu wuute war nañoo am ñu leen tënk ñu am ñu leen di wan yoon wi ñu war a jaar bu ko ñëpp xamoon nit euh, fàtt li moom du ëpp mukk du wees fàttali mooy jàngaat jàng dañ ne minal mahdi ila lahdi tàmbalee ci gëstu bi da ca bàmmeel day fekk réere danaa ngi bon xam lu di wax kon ñun ñëpp fu ñu toll minal mahdi ila lahdi rek dañu war di fu ñu toll di jéem a xam lu ñu yokk di jéem a xam lu ñu gën a jubal di jéem a xam nañuy lijjatee suñu nañuy àndanteeg nit ñi xam nañ ko lu ñu dëkkal ak yeneen bindee fi dul nit sallallahu alayhi wa sallam indi masala boo xam ne maanaam léebu mu léeboo ko ngir jàngal nit ñi li nga xam ne moo ko fi indi mbooloo mu bokk dugg ci gaal dem ba ci digg géej gi jubóotuñu ñu xuloo ci woote gi ma waxoon léegi ñu xuloo coow li jóg ñu ŋàññante àddu ci kenn ku nekk dootul tudd sa moroom ñu ne kon mën séddoo gaal bi ku nekk sa place kenn bañ a fekki kenn daal di rëdd kenn ku nekk ñu rëddal la fi nga war a yem ñu séddoo ba jekk am benn waaye bu fa sawtaam rek ñu ko xam ne daal di commencé di yett ah waaye yow nooy def damay yett sama palaas maa ko moom maa ko moom kenn sañu ma cee wax dara séddoo nañ ko ba noppi damay yett sama place ah buñ ko bàyyee mu yegg ci ndox mi dugg ci gaal gi gaal gi suuf ñëpp dee nag wax nun dañuy téye suñu bopp bañ a tooñ dañ ko fekk ci place am bañ loxoom ndax moom moom place am nu muy de déet bu fekkonte ne day bu yettee gaal gi moom rek ay suux ñu mën ko bàyyi waaye gannaaw ñun ñëppay suux loolu kat dootu mbiram moom kenn mbirum ñëpp la buñ nekk ci jàpp waa ji nangu sawti si sànni ca ndox mi fa ñu jëm mucc buñ wutee njàmbur wala ñu ñàkk xam lu di ak njàmbur mu yett place am ndox mi fekk gaal bi bu ji mukk dee noonu la mujtama du mel noonu la société du mel taqu fitnatan la tusibanna lazina zalamu minkum xaasa alquran ne na ngeen di wattandiku fitna joo xam ne bu ñëwee du dal ci bopp ki ko sos ki ko sabab rek ñépp lay boole sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha laaj ko ay nit bu fekkente ne ñu ngi ci lu yàlla di tooñ seen moroom ba suñu borom mere leen ba tibb mbugal parce que liñ ko yëree ci bokkul ñoom musiba ma waaw waaw bu fekkente ne de téere wuñu ko doon def digle wuñu yiw tere wuñu lu bon bu mbugal ma ñëwee ñoom ñëpp lay matale du bàyyi kenn ñëpp ak njaambur am na fu mu yem fu mu dale fu mu àggul ko ne ah, kon société moom buñ ko seetee mooy mbooloo moo xam ne ni ma ko wax woon rek wuute bi dafa bari nit ñi lu dul bopp yi féete kaw ak loxo yi lang rek li ñu niroo ci bés ñu wutee ci bitti seen biir ko raw ñu baax loola ngi ci ñu am itte ñu bëgg lu baax bañ lu bon ñu sawar ñoo xam ne njëriñoo ñëpp dana leen tax a jóg fa loolu yi ñëpp dana leen tax a jóg ñu set ndax ci ñoom rek la yem wala déet amit ñeneen ñoo xam ne safaanu loolu lañ am ñoo xam ne dañoo jàpp seen njàmbur rek amuñu soxla ci kenn amuñu soxla ci lii matale muy lu baax la muy lu bon yoonam seen yoon ñëw rek la ñuy topp amit nag ay tooñkat yoo xam ne ku leen bàyyi ci jàmm bi nga ci jàmm yoo xam ne xuloo garante xëccoo rek ci nekk loolu mooy mujtama bi nag war a seet naka la fi nekkee سيدنا علي بن خلف الجاهلون اللي اهل الحلم اعداؤه نيت دي جهل موي نيت كو خامني لي راهي خولم ليغي رك لا بغا خاج ليغي بودي لوم بغ نكو ووت ليغي بودي لوكو نخري نكو خاج ليغي سيتو لا سي موجي اك لا سي نيو سيتو جوب ما ولا جوبل لي كو نخري دال نا داني رك سيتو نخ لي كو نخري يون لا ولا دو يون نيا mbir mi ñeneen ñoo xam ne dëng nañu waaye am nañu xel xel mi ak dul ci raxas seen xol ba ragal yàlla xel mi fu mu yem fexe ba mucc ci lamiñ yi nit ñi ak seen mbañeel ndax ñu bañ a xat wa ida laqu alladina amanu qalu amanna wa ida xalaw ila shayatinihim qalu inna maakum innama nahnu mustahziuna waaye nag ñooñu allah yastahil bil juudi yoon ñooy bu nekk dafa am ay jiit am ay jaani ñàngoor am ay segg am ay kaña am ay béy ay xar buusu dangaram gi rek ci xoli nit ñi ba jaarale leen ko mu ñi paas itam ñoom ñu ngi fexe ba dara du yàq rek lu ñu mën daañu ko def seytaan bi mu ngi wax Trézégo mu ngi defaru ba jekk moom di fublu rek di seet fu mu mën a boroxlu ba yàq moom ko defee moom li mu bëgg mooy tàbbal ci xoli nit ñi ak bañante soñante fexeelante kon bu fekkente nit ñi topp nañ ko wala benn kuréel ci ñi nga xam ne yàq na leen ba man leen lool topp nañ ko société bi dal di jaxasoo bi dal di jaxasoo safara moo ne tàkk ñu ko mën a fay muy taxam rek bu ca yow taxam rek bu ca doon waxtu mu demee dañ bëgg a fay mu taxam doon li ca loolu mooy bindee fii def boole seen bopp mayante waxtaan te mbañ a nit bu saxal sa morom bokk pexe bokk lu mu bëgg bokk lu mu bañ ko wax bu ñu delloo ci seen xel rek ci xew-xew yooyu daañu yeewu te comme seytaan du am fu mu jaar soo loolu nag mooy mujtama boo gis ci adduna rek noonu la demee façon nit mu nekk ca nekk kenn ci nekk nag am nga sa liggéey boo xam rek ngay def am itam xew-xew yoo xam ne ajuwul ci xañ tamit doomu aadama wala man manam wala coobareem xew-xew yi biddiwi asamaan yi romb ak seen jëf yi ñuy jëf yi jawwu ji akub soppikoom uppam moo koy indi yii yeneen xew-xew yu jóge ci beneen réew moo koy indi dañu ne wuute bëgg moo raw bañante waaye doomu aadama ji nag da nga am sa sas ci mujtama sas bi li ci jiitu mooy ñu tuumaal sa bopp ñu nga lépp lu xew njëkk a la tuumaal sa bopp ñu nga njëkk ñaaw njort ci sa bopp waaye bul defen rek foo tollu yàlla ci dëgg loo wax rek loola am ñun ñëpp yow la war a fekk si yow la war a déglu nit ki woyfal boppam wàcc moo koy tax am yàlla moo koy tax am yeneen moo koy tax am diine la nekk nekk ci kaw sant nañ la nga wàcc su tolloo jaan yi sa tuute ñoom dëgg jot la nga dellu gannaaw kat mooy ngëneel waaye ñuy ci lu dëgg sax ca nattu sa am fadila moo gën nattu فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله صلى الله عليه وسلم مئة تي نيت ني گن تي جوب تي خم خم سن بروم داف نيك كوي نياخ تي خيمال بيم كو جوخ خيمال بي لان لا خنا نيم كو ماي خور مانا نوي واتش با تولو نيت ني اك ليم لين راو ليپ با بي فن سي ньо بو فكه مو توك تي صحابي دوكو تي خامي buy ñëw du nangu kenn ku jóg gatandu ko du nangu kenn ku ko xajal fa mu fekk jataay ba toll fa foofa lay toog ne ko nag jikko jooju la suñu borom jox muy nooyaay boobu nga nooy ak woyof boobu nga woyof wàcc boobu nga nga wàcc suñu borom moo la ko defal ma rahmatina lahi lim lahu walaw kunta faddan ghalid al qalbi lam faddu min hawlik boo nekkoon nit ku xat xol ku soxor ku gàttañlu ci wax nit ñi ñëpp dem bàyyi la nga am kenn koo jubal kenn du la toog na leen jéggal seeni tooñ ak seeni njuumte te nga jéggalul leen yàlla seeni bàkkaar te nga di diisoo ñoom ci mbir yi kenn ku nekk am ci wàll ko defee kenn du yëg ne yow kat dañ laa suufeel wala dañ laa xeeb wala dañ laa teg fële wax woo xamee ne mayoon na saxaaba yi mu ngi jublu mbir bu fekkee ne am na ci xalaat ba tàmbali xalaat boobu kenn ci saxaaba yi ne ko waaw lii suñu borom ko digal sañuloo koo bañ wala sa xalaat bopp rek la bu ne waaw sama xalaat bopp dong la ñu ne ko lii du pexe nan def nangam ak mu dal leen cay fekk te na mu gën a yombee na mu gën a woyefee na mu gën a neexee bu mu demee am gis ne l'islam résoudre na problème yi yëpp lépp luy war a xew ci adduna muy diggante ñu bëjoo wala ñu xëccoo wala ñu wute wala diggante nit ak bakkanam problème yi mu koy posé diggante nit ci ak mujtama bi lépp l'islam leeral na ko ba mu leer nañ ñi ba nga xam ne xàll la wu yaatu woo xam ne ku ci jaar fakk du la fël mukk xel mu lëng nag عندك رفتاي موي جاك ادنا دنج خل نينت لا بروم خل مو غات كرافت اك غور لا بروم بروم خل مو غات تا نياو بروم دوك لا بروم خل مو غود تا نياو بروم شيطان لا خل مو غود كرافت بروم والي لا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم الأداة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم sàngara bi ñu ko daataan araamal li gën a tax ñu araamal ko bokk na ci bu julli jotee booy julli doo xam looy wax boo màndee ñaareel bi boo màndee da ngay tooñ te tooñ boobu day dugal ak noone ak mbañeel ci diggante jullit ñi ñu dal koy araamal ndànk ndànk étape par nit ki nag gumbo ci ayibi moromam na tëx ci wax ji yàq moromam bu ko defee rek mucc waaye ñun ñoo xam ne boo leen dégloo rek doo jubóog sa mbokk doo jubóog sa xarit boo amee say bët tam di xool yàqu-yàqu yu nit ñi doo jubóog kenn te da nga bari bàkkaar lool شاعر دفن إذا شئت أن تحيا ودينك ظالم وحظك موفور ويرضك سين لسانك لا تذكر به عور امرئ فعندك عورات وللناس أعينك وبك دم سدين مج سودر نوم نيوم سبتير مك سلامي بي بوتي تب أي بجامر نحن نتنكت يو أمنا أي أي تنيني أمنا إلى منك وإن أبصرت عيناك عيبا فقل له فلا تبصري يا عين للناas ayna bu sa bët yi bëggee xool ayib ne ko bul xool ayib am nga ay ayib kat te nit ñi am nañuy bët dañu ko ba bokk na ci teggin nit ki bañ a gis loo xam ne sax du awra waaye secret si jàmbur la boo duggee ci néegu jàmbur bul wëndeel sa bët wala tujil fi bayti gayrika al basar xawfa tilaayi awratin fihi sutir wala fihi satar wala bul wëndeel sa sa gis mukk ci néegu jàmbur ndax lee nga gis loo xam ne borom bugul woon nga gis ko te inna sam'a wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana anhu masuulan muy nopp bi muy bët bi muy xol bi bu ci nekk ëllëg daañu ko laaj te lu ci nekk cër bu mu doon ci àdduna loo ca mooy dana def tâche ci sa xol te xol boobu tâche yooyu day dox digganteem ak leeru ngëm digganteem ak yërmande yàlla digganteem ak بعدين شاعر انه لا تلتمس من عيوب الناس ما ستروا ويهتك الله سترا عن مساويك واذكر محاسن ما فيهم اذا ذكروا ولا تعيب احدا منهم بما فيك نين لي ني سترا لي ني لب بوغو نيكو خام بوكو لي نيتو كل لي نيتو في جابو لولا سمبيرو بوب دوي داخ لي ني لي نيت خينا صاح نيكو اوبوليسيون وايي دوكو جيس داخ لي ني دوف ادم غاتي خيل داي جيس ëkk day gis fépp fu ne ci bëtu moroomam te du gis ëkk bu ne ci bëtam bu fekkee nag yaa ngi limitu ay bi jàmbur yi di ko waxtaane su borom dana xotti sa sutura bis ba nga xamee ne ci nga gën a bëgg sutura dañoo nettali woon ñaari nit ñoo xam ne daanaka ku ci nekk dafa am maam mu baax kenn ki wax ci maamu moroomam lu dul noonu lu ñaaw am ku ko fekke woon dem nettali ko keer mu ne ko ah, moom mun def naa mooy seet suñu maam di liñu ci ayibam di ko wax waaye ñun day seet suñu ayib bi maamam te duñ ko wax nit ni mu fàtte yàlla ba dal ci sa kaw tooñ la fàttali ko ko yàlla yow ba jéggal ko walla nga bañ koo tooñ jéggal ñaar la saf ak afu afu mooy doo ko topp waaye nag li mu la wax jàpp nga ko naqari na la sax nag mooy nga fàtte ko bul ko liyéti rek xalaat rek yoonu yàlla bu ci nekk ba nga ko moroom bu teewee ak bu ko nga topp nit ñi ko lu ñu bul gaaral kenn wax loo xam ne diw nga ci jublu lu rek a tax nga di ko wax xol bu rat moo koy indi nit benn koo xam ne li ko dal mënu koo faj wala ñu tooñ ko te mënu la wala mu am mbañeel bu mu nëbb ci nit te ñemewul a dal ci kawam amul benn illa bu mu dale ci kawam muy wax wax joo xam ne diw moom moo tax moo nga wax ko nag ñooyam di jàng fiq xam ne taaril boo ko tasrixayam taaril ak talweex ak tasrix benn bu ci nekk buñ xamee la nga si jublu rek mu ngi mel ne wax nga ko ba mu leer te day sabab ak noone te noone gi li si juddoo rek ci yow la juddoo te yëpp yaa koy yenu yow la te lépp li koy waral yéene ju ñaaw yéene ju ñaaw ak xol bu salte mooy indi ngay ŋàññi nit wala nga di ko woyofal wala nga di ko suufeel te du indi leen dara ndax mu bu la tooñoon sax dañu ne wa in aaqabtum fa aaqibu bi misli ma uqibtum bihi waaye wala in sabartum loolu waxee bu leen tooñoon ngeen ngeen demee ba mënu leen a bañ a fayu mënu leen koo muñ ngeen di fayu la ngeen fexe ba la ngeen di fayu yem ca lañ leen tooñal lu jafee ngoog ndax boo meree bay fayu lu ci ëpp ngay ëpp kël leen kon boo ko mënee boo ko mënee lu di yéene ko amul dara lu ci baax waaye wala in loolu moo waral jikko yu bari xol bu salte ndax fekkente ne mbiru adduna rek nga meree kii adduna amul solo boo seetee ne xamuloo da ngay xëy suñu xamuloo da ngay gont dem ci bàmmeel te boo demee mboolem loo ko jëfoon dañ ko fekk boo ko fekk leneen mukk du li nga jëfoon boo ko seetee rek mu wóor na ne ki tooñ yow ni muy gañe nga ko gañe nga ko ndax lor na boppam te yokk na la tuyaaba yow mi ñu tooñ wala ñu wax la lu bon wala ñu dëkkal la néeg yoo dëkkul nga muñ ko ngir yàlla tuyaa bu ju réeré ndax fanq nga ay wu naroon a am musiba mu naroon a am nga fanq ko moom nag taal na safara woo xam ne warul woon mënul woon a xam fu mu yemi yow nga fay ko nuroowu leen kon bu rek wala mu def la metti la nga xam ne yow yaa ko gën a jege yërmande yàlla moo la gën a jege merum yàlla moo la gën a jege safara loolu rek boo ko seetee nga man koo yërëm ba baal ko mu leer na la itam xel mu gàtt ak xol bu salte moo waral mu di la def lii nga xam ne la mu def boppam moo yées lim la def nga mën ko muñ li mu def boppam moo yées li mu la def moo waral ñu ne la ko lekk medd sa mbokk mu dee ba nëkk nga ñëw di ko lekk noonu mu ñaawe loolu lay jëw ñaawe ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه te sallallahu alayhi sa sallam fa ne soxna si tedd si waccul waccul mu luuju waccul su borom def la mu waxoon ci jigéen ju ko romb rek di diri mbubba mbub bi mi nga xam ne sharia daf koo tere ndax da ngay bu ñaara ci nekk ak rëy di feeñal ne mën nga am mbubb mu gudd ñaareel bi sobe si muy diriku nga war ko nga di ko julluwaale loolu tax mu ne dal ne ak guddi mbubb mu ne ko luujul mu luuju suñu borom def bàkkaar boobu ci naroon a am nekk lumbu deret mu dal di koy yàbbi mu ne ko giñ naa ci suñu borom tabaraka wa taala ne su fekkoon ne lumbu deret wi wanaasu ko dara laa la mën a yomal xiyaam du ma mën a tee mukk nga dugg safara beneen soxnaam ñu ne Safiya benn soxnaam bu ñuy wax safiya xam ngeen ne safiya astafirullah al azim doomu yahud boobu la woon benn bis beneen jigéen di ko yahudiya yonente bi salaam mere ko ñetti fan ko xool Eh, safiyat boobu dafa njoolul woon dara dara am benn mu jëm mu ne xasbuka min safiyat xàkk gaas maanaam safiya daal nii la toll te def ko wax nga baat boo xam ne bu ma sànni woon ko xorom bu nit ci teewaayam wala ayibal ko ci fàddoom maanaam fu mu nekkul baat yu diis la mën a alag nit ndax yomal xiyaam bale xewi na bale ci adduna rek la yem yomal xiyaamee kenn du baal kenn dara dara dara dara nit ki nga waxoon baat bu ñaaw keroogee mu jiital la doo tàggoo moom lu dul mu fab ci sa yiw bi nga amoon ndegam am nga ko fab ca lu bari wala boo ko amul nga yenu ci bàkkaaram lu bari boole la nga amoon wowu xol nag mooy waral yenn yu ci bari wowu xol ak ñàkk ak umpale sa bopp ak ñàkk a seet ëllëg ay bàmmeel ndax wax ju ñaaw dana faat ay bakkan mën na indi xeex ba reyante am ci mën na yàq alal ju dul jeex mën na xañ nit yu bari lu mu waroon a am dana yàq diggante ñaari nit dootuñu jubóo mukk ba ba ñuy dee te wax ju ñaaw lu mat di wattu la lu mat di pesé la bala nga koo wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma soon di dem am benn waaye bu ñëw ne ko man day alku naa mu ne ko du la alak mu ne ko dama amoon soxna maanaam sañu ba pare dem mooy a bi sallallahu ko gannaaw bañ ko faale mu dellu waxaat ko mu bañ ko faale mu dellu waxaat ko mu ne ko xanaa dangaa dof ñu ko déedéet dofuma de man kay dama bëgg ndax tiit naa torop dama bëgg li wax ci man ñu def ko yonent woo saxaaba yi ne leen dem leen ngeen xeer lañ lay sànni ba nga faatu dan nañu dugal la ci kàmb wala ñu ci garab xeer yi dikk di dal nekk defee xam ngeen xissa abu chahma boobu dafa guddi doomu sayidina Umar nga xamee ne sallallahu alayhi wax na saxaaba yi loolu ba ñu rey waa ji ba noppi mu continuer di dem ñaari gaay yi topp ko di jëw fi ñu rey di wax ci moom lu bon te ak si fekk mbaam mu mér bi sallallahu alayhi wa taxaw ñu leen lekk leen kii li ngeen di def lekk kee ko gën waa ji ngeen di jëw seen naa ko ca àjjana muy jure ay malaanam ndax nit ci li nga wax ci moom bu dul dëgg mooy li wax al buxtaan bu dee dëgg mooy al xiiba nit li nga wax ci moom te du lu la leer loo xam ba toppatoo ko ba mu wóor la te booba wax ko wóorul waaye boo demoon ba wax koy li ci nekk ci musiba kenn xamul lu mu toll bu dee nag lu la wóorul xam ngeen ne fen waxtu nga ko nit defee te ajuwul sax ci àq kenn te lorul kenn can gi dana génn ci gémmiñu waaji ba jot ba àgg aras àgg aras dana nekk jëmm dal ne man maay xelu jiw sàngam bu ko defee suñu borom rëbb ko malaayika yëpp rëbb ko soog a nit ki war a ittewoo ayib bi boppam waaye di jëf rek di ko jox ñeneen ñi loo jaamu yàlla jox ko ñeneen ñi التخيلي له فرح تلاقيه تمثل لك إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قدم يلا أدبيش بمجبك واي واخ لن تلاح لو باخر جتا يبونك بومن لف فاتلي يلا ولا غادي كو فاتلي كو ولا غادي دغ كوي فاتلي يلا ولا غادي تود يلا ولا غادي واخ تاني لي ديلو سي نيت ولا لو جيم سي الاسلام تاي بو خامني اك بيرت جتا يي بيرت لا بو خامني يوم الخيام دنج كو جوي loolu moo tax ñu ne rubba qabrin yu zaar wa saahibu naan bari na bàmmeel bu nit ñi di dugg oto wala ñuy wari fas di ko ziyaar ji te borom nga ca safara dañ ne ma kullu inaatin billazi fiihi la ne ca xol ba moo bon ki nga xam ne lu baax rekk lay wax la nekk ca xol ba moo baax bind du ko bind loo ci def rek ëllëg dana la jël te am na ci nit ñi ñenn ñoo xam ne seen yàpp lu ñu tooke la su leen jëw rek suñu borom dana la génn ci àdduna te yow ku ngay jëw xamuloo suñu borom daf ko jéggal mu bokk ci mbaa yàlla yi wala déet am na jëmm yoo xam ne suñu borom daf leen baa yàlla du leen bindal bàkkaar kenn xamul ñenn la su ngay jëw fekk na yàlla def na fa yàlla moo la gën foofu yaa ngi fab semiñ di jox sa bopp rek baat boo ko wax mel nga nekk sax sini di cor sa bopp yooyu nag ñu si gën a mat wattandiku ci nit ñi ñu ay xeet lañu am ñoo xam ne yàlla defal ne leen bu leen di rek fàtte leen mooy ñi nga xam ne amuñu lu leen di def tam ñu lu leen di distingue lu leen di euh, féetal ci nit ñi nga xam ne du nit yu bari xaalis lool du nit ñoo xam ne dañoo amee place bu kawe lool du nit ñoo xam ne dañoo bari xam-xam lool du nit ñoo xam daal am na lu tax wala nit ñi dañ leen a wormaal ñooñu la gën a faral bi jëw ñooñu la ñuy gën a faral bi jëw waaye bu fekkee ne ñoom seen bopp xam nañu dara buñ koy yëgee rek dañuy jëw dañuy am mbég am naqar lii la naqar am moo di ne nit ki alku na ci ñoom te nit ku baax du bëgg kenn ku alku ngir moom li Imaam al-Ghazali radiyallahu taala anhu wax woon ne boo tëjee sa néeg jëm di sakk ñu yootaan ko ci jikko la ñu damm xomb dugg ci sàcc ko boo ñëwee da nga sant yàlla ndax xëy na natt bu la waroon a dal la suñu borom wane fare ko noonu waaye na nga am naqar ndax sàcc bi day sóob na boppam ci mbugalum suñu borom te am na laago laago ruux boo xam ne xamul fu mu koy jëmee ji boo ko mënee ñaanal tax nga ñaanal ko te nag du koy bari mënuñu ko néew na nag ñu ko mën loolu mooy li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko borom nekk li nga yéene sa bopp ci jàmm boo ko yéenee kenn ku nekk nit ku moy dana la naqari nit ku tooñ dana la naqari ndax nit dama ko cay fekk. xam ne it waa ji lu yàgg yàgg jëfam yooyu duñ la ci laaj lenn yow ëllëg sa jëf rek lañ lay laaj waaw waaye pour jëfam ci nekkoon chef xam ne dafa ci dindam dafa lëjaloon nit ñi lool soxar di tëj di dóor di yeew di lu ne am benn mag bu baax bu suñu jox gis te du ci filiyaanam ba mu yàgg mu ne cey nga xam du nas nit ñi sowe lañ ko te ni mu soxare woon ak ni mu bare woon ni mu amel xaq mu ne ndax soo yenoo sa sendalu sabra koo romb rek mu xab ci benn tax du mu di jeex ne ko xakay mu ne diw moom de li mu tooñ lépp nit ñi jël nañ ko loolu moo tax tooñ di gaaf day lor sa bopp yor ñi ko xam di ko wax bu dul xaadi ji atte du muxtasib amul droit ci dugg ci mbiri nit ñi di ko liñit aji atte jiit dañuy indi mbir mi ci loxoom atte loo ko muy ku buur teg wala ku mboolem jullit ñi dajaloo teg bu boobaa kooku mooy sañ a liñitu mbiri jaamut te jubloowu ko lu dul atte rek jàmm am ki ko ñaareel ci waxon muhtasib ihtisab ixtisaab amu fi parce que boo xam nguur mo koy nome muhtasib bi day wër marché yi di wër mbéd yi fu fekk lu dul noonu day ànd ak ay alkaati ñaari alkaati wala ñet wala ñent batu bur lay amé fu fekk kuy def lu dul noonu mu dal di dal ci sa kaw fekkente ne yar la ci saa si moo ci war mu def ko bu dee tëj laa ci war mu def ko lu ci war rek mu def ko bu dee lu ñu war a tere rek mu tere la mu tere la nga ko defati fekkee nit wala nga ko jàgg ak xulóog yooyu ñu soog a def nag la ca war a leneen la ca topp rek mu def ko ba tax nit lépp lu affaire am néew rek na ca gàttañlu la muy wut dëggu la muy woo xam ne dafa tàmm wax dëgg lami mu tàmm fen day xëcc boroom jëme safara am ñu muy ŋàññ moo ko yées di xotti te deru nit ñi bu yomal xiyaamee xaji safara xotti te sa deru xotti te sa xol bi suñ borom dafa bind nit ñi wóotale seen lépp wóotale gi nag nga ne li aji wuti mën na xaj nit adduna te kum dajal moo la gën mën na jox nit adduna te kum dajal moo la gën mën na xañ nit adduna ba noppi te yées ci nit ñi wala mu jox ko adduna ba noppi te mu yées ci nit ñi bu ko soob rek lay def yurji lal fi naari yurji naara fi leel يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي soxlaal nit dara it bokk na ci nga xam ne lu tax nit ci doyadi ba as na doyadi boppam wala mu fenn soxlaal kenn lenn ba def loo xam ne burul woon loolu doo ko def itam te du dëgg ba tey ràpp xol la te luy alaka la lekk alali doomu aadama yi ci lu dul yoon boo xam dañ koo nax wala nga ëpp ko doole ger ñi leen di atte wala nga mën ko jiitu ko ci bunt yëpp amul fu mu jaar wala nga njabar ko wala nga laaj ko mu jox la ci fersa ndax laaj li tax dañ koo xaraamal dañ koo daganal rek ngir daruri yu maanaam contrainte bu fekkee ne laaj nga nit ci alalam muy mu rus la jox la ko lam la jox daganul ci yow nga laaj ko mu jox la ngir njistal lam la jox seddul ci yow dañoo tëral ay ay ay xaal ay cas yoo xam ne ci la nit war a laaje ak tege teg nit ci mu ragal la wala sañu bañ mu yëkkati li nga xam ne xolam seddu ci jox la ko yàqal na la lu bari lu ëpp lam la jëriñ yooyu yëpp da ko delloo yomal xiyaam ndax nit farata la mu sàmm deram kii boo ko joxul mu ŋàññ la nga fab sa alal jox ko ngir sàmm sa der jaamu yàlla da nga ci am tuyaaba moom nag musiba nga ko jox defara nga ko jox sallallahu alayhi wa sallam dafa wax saaba nit laa نيل دما امي خل نين امي خل دغل لما يالا واخ ماني لي يالا واخ موم بولن دنگ دنگ ديخ لين لما واي نك ني ات تي ام دغ أنا نوب تي منو لا ليرالال دغم بي بما خاب لي لي نيو لن خيو جوخو كنين واي ني لين وور نك كوماكو سي جوخ لو مومول كات سفر لا دغ جوخ لا كون ني خامل الباطن امنا foofu mën na leen a yee mooy sharia ci atte jaam ñi ki yonente bi salaa sallam jox liñ doon xëccoo sharia moo ko ko jox ndax na mu waxee ak seede yëpp indi ak lam waaye nag ca baatin yàlla mi nga xam ne moo xam baatin xam na ne kii li xaqiqa li baatin mooy kii liñ ko jox moomu ko te yowmal xiyaam dana ko lakkal salaa sallam dafa ne umit an uqaatila annaas xatta yaqulu la ilaha illa fa ida qaaluuha aqsamu minni dimaahum wa amwaalahum wa aradahum wa xisaabahum ala allahi dañ ma digal ma xeex ak nit ñi ba ñu ne laa ilaha illa moo gën bi ñu ko waxee musal nañu ci musal nañu seen bopp ci man ci seen alal du ma fab seen alal seen bakkan du ma leen rey seen cër du ma leen ŋàññi waaye nag yàlla moo leen di xisaab ëllëg kon zahir moom la sharia atte baatin ma nga ci biir yàllaa ko xam nit ki mën na jaar ci sharia ci kaw fekk ca dëgg-dëgg ci bàkkaar rek la xuus moo di baatin mooy xaqiqa te si itam dana ñàkk yéene nit li mu am wala li mu ñëpp li ñu tuddee li ñu tuddee loolu mooy alxasan mooy sañaan ndax na ci jikko li gën a bon ci jikko yi moom ak rëy ñoo ci jiitu ñoom ñaar ñoo alakoon iblis iblis ba mu añaanee aadama bi ko ne sujjootal ci moom mu rëy ak ba mu nekkee ci àjjana mu añaan jëm sax ba génne ko ca ñaari jikko yi ko alak mooy jikko yooyu le tax ñu ne alxasuudu aja añaan du sang mukk mukk mukk جفس القلم وفرغ المولى من الأربعين خلي ما جفن دي نفس المبرم لمو يجف دي نفس المبرم جام منكو رندل منكو يق منكو والي منكو جيتل منكو سيخ وفرغ المولى من أربعين أجل خلق وخلق ورزق كل أجل كان يعني موي نون خيولو سن بروم تبارك وتعالى لما خصصت النفس موم لا بكن بو du ñàkk jikko yu rafet zul wajhayni mooy ki nga xam ne yalqaaka bi wajhin wa yatawalla anka bi wajhin axara bu dikkee ci yow wax la lu rafet wan la lu rafet te du dëgg ci moom nekku ci moom bu la wanee gannaaw feeñal leneen wala ñaari nit ñu di boowul nga dikk ci kii wan ko ne yaa ngi ci dëgg ànd ak moom minal alifi ila yaa dem ca kee wan ko ne ko ci dëgg naan naan loolu la wax dul ba di xëy ni borom ñaari anam dul ba ci xëy ni ak bay yuus lañu wax ne xeetu àjjana du leen xeeñ te àjjana kat doxub juróom ñaari junni at mu ngi la xeeñ mu ngi la xeeñ ba dundal la ba soppi sa lépp bay yuus xeetu àjjana du ko xeeñ naka loolu dul ba di xëy ni الحسن ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب داي يك يوي نيت كي كيكو بيندو ني سفرا دي لك مات يكون العداوة قد ترجع إزالتها إلى عداوة من عداك الحسد بيب نوني بو نيك دي بنت نياري نيت بو دي دي نيت ادنا بو دي دي ريرو بو دي دي نياك خامنتي كل ني جوبلو من نا دنج ba mu def ñaar ñi féewoo nga xam ne duñu añaan féew lañu ne te ñoom duñu dugg mbokk moom lañu wax na dina ñëw wala yasurruhu badal lazmani siwa halaakihi bila bila tawaani ndax ki nga xam ne dafa noonante ak yow tax añaan a dara du ko bëggal lu dul lu dégg na jàngare ku dem sa dëj yu bari ci jikko jooju ñu ko waxtaanee rek jikko la joo xam ne day màbb te du tabax mukk day yàq du defar day sos ak noonu di jëm àdduna boroom moom di gëm ak di boroomam ñu ko sàkk moo gën a salte moo gën a ñaxe ndax noonu boroomam la ndax li suñu boroom jëkk boo ko neexul suñu borom la mu nam kenn mënu ci dara dana tax a tooñ moom day alak wa zulmu yurdi ahlahu wala tusaakin ahla zulmi awdu laa tujaawi sa mer dañ ko tibbee ca safara xaru jahannama te dañ tibbee mer sànni ko ci xolu doomu aadama muy yu iblis di war a waayam sallallahu alayhi wa sallam nit dafa ñëw ko jënk ma mu ne ko laa tax a bopp bul mer bu meree moo xam li ko mer loo dëgg la wala du lu jaadu la wala lu jaaduwul lu jar mer la wala lu jarul mer deret bi daal di fuur yëpp ci kaw bopp bi lëndëmal xelam fees xol bi doo ko am yërmande yërmande ja génn du bëgg lu dul daal di rey wala mu lakk wala mu yàq wala mu wax baat bu koy dugal safar ويا أخي الغيبة والرضا مع العجب والحسد والكبر دعاه وعدم وعدم الرحمة للإنسان وحب رفقة على الأقران فكل من جمعها أو احتوى واحدة منها فخاتر انتوى لأنها توجب رد العمل إذا الذي عمله كالتحقيق mu ne jikko yooyu ku ko boole wala nga am ci benn aji perte nga te nga alku ëllëg ndax day tax li nga jikkoon lépp ñu delloo la ko waxtaan nañ ko ay yoon yoon yoon waxtaan nañ ko ay yoon bi ci jiitu mooy rëy ak naw sa bopp yóbbu sa bopp ci kaw wàcc nit ñi ci suuf te ñaan ñàkk yërmande bëgg a yëkkatiku ci kaw sa ay morom féete leen kaw mu nekk ci sa xol boo xam moo xam feeñal ko wala feeñaloo ko mu ne ku ko am ci benn ku perte nga te kuy alku ëllëg nga ndax juróom-ñaari asamaan yëpp bunt asamaan su ci nekk bunt ba suñu borom dafa teg malaayika moo xam ne bu jëfi jaan bi ak lenn ci jikko yooyu rek lañ cay seet daf cay marqué bu ko sa gisee taxañ jëf jëfaane ko ko ci bët jëf dana agsi leer nañ ñu ne jant bi set wécc weex tàll malaayika yi yor ko bépp xet gi neex malaayika mu mu romb kooku di ko banam ko ndax bëgg koo laal barkeelu ci malaayika yi di yéeg ak jëf yëpp ba yéeg juróom-ñaareelu asamaan asamaan sa mujj ñu seet ki ko jëf rëyul nawul boppam añaanul yëkkatiwul boppam ci kaw ci kaw ay nawleem ñàkkul yërmande ñu seet si ko yooyu yëpp amu ci benn tâche bu nekk ci jëf ji boo xam ne lenn ci jikko yooyu ko waral ñu jàll suñu borom tabaraka wa taala ci xasanatul qudsi ci pays bu sell ba suñu borom laaj malaayika yi kenn ku ci nekk xamal wax ne jëf ci day man ba mu accès ci man seet naa ko borom daal xol bu set la ko jëfi boo xam ne benn dàq amu ci suñu borom ne leen nax na leen waaye man mënuma nax nax na leen waaye man mënuma nax gis naa ci dàq bu ngeen gisul ñu jaaxle taxaw di ko dégg wala leen jëmm ji jëf jëf ji bi mu koy jëf dafay wut maqaama dafa may jaay jëf ji man dafay wut ci jëf ji ma def ko mu gën ñëpp jëf ji muy jëf daf ci séenu loo xam ne lii du loo xam ne daf ma war man ci sama loos ma ameel ko <coughs> maa ko bind moom ko moom jëf ji maa ko sant jëf ji maa ko joxe maa ko may kàttan bu ko jag war a jëfee ndax ne li nga waaye man wuru mën la kon sellal jëf bokk na ci li ma ko jàng foo toll jëfe dañ na jëf ñett jëf baax benn kii day jëf ngir bëgg àjjana wala ngir ragal safara am tuyaaba dana am pay waaye moo gën suufe daraja ñett xeet ñetti xeeti jëf yi jëf ji ci tegu boroom taxu koy jëf ragal safara taxu koy jëf lu ko tax muy def day wut ngërëmal yàlla day wut lu neex yàlla kooko ëpp tuyaaba moo ëpp ki ñetteelu jëf ji gën a kawe ngir màggal suñu borom xam ne suñu borom ko moom te ku mat màggal la ku mat a jëfal la ñàkk koo jëfal moom euh, lu nekk ko gënal mel ne jaam bi nga xam ne nee na mooy suñu borom te dem àjjana bañ koo mooy te dem safara ko ko gënal bañ moy suñu borom ta dem safara mo ko gënal moy suñu borom ta dem aljana nga xam suñu suñu borom bindul won aljana bindul safara dibul kenn ngërëm wala defal du defal kenn dara ci jifami it duñ mën bañ jëf ndax bëgg giñu bëgg suñu borom tabaraka wa taala xam ne cofet gi ko sopp ak bëgg giñ ko bëgg rek motax ñuy jëf ci du sami bustani radiallahu taala ñu bi nga xamee dañ ko laaj ne ko yow tan ngay nopp ci bëgg giñu bëgg suñu borom mu ne xana buma gisé suñu kenn ku ko bëgg manam dafa fiir ci ci bëgg suñu borom ba nga xamne xolam mun la supporté keneen kuy bëgg suñu borom ne moom dama jooju moo ne suñu borom ngëm du yàlla am na kàttan bopp safar wa ci yemal xiyam bu ko gisoon tiit ba fay kon jaam yi ci jëf yi lañu rawante ci lañu wuutee waaye doomu aadama bi war na wàcce boppam ba kum gis dafa ne yaa ko gën kullu man yanzur fawqahu al-kilab fal kalbu khayru minhu duna al-irtiyab képp ku jàpp ne yaa gën xaj boo xajee la gën إن تحدي أنك ذو فضل على أحد قبل النجاة غدا من أي إنسان فاعلم بأنك ذو جهل وذو سفه وجاءك العجب واستدراج شيطان bu amé benn bindé su suñu borom bind nga japp na yaa ko gën rek donte weñu lii la te yomal xiyam ñëwul ba nga mucc loo kooka moom alku da la wóor ne seytaane ngi lay nax mi ngi lay jey te ku réer nga te ku dox nga kon nga ne la li ma waxoon sànq ne waa ji lay jëw wala nga di ko ayibal xamuloo suñu borom daf koy jéggal léppam wala déet xamuloo moo la gën wala moo tax danger la maanaam xatar la bu mag ci wàññi nit xas ko wala tuutal ko wala day yàq def dañu si daaj dund suñu borom mas na ko taala ko dama bëgg nga dem àdduna ci kaw suuf si nga seetal ma ci jëmm jóogal nga dama soxla si daaj jibril suuf si ba daj gisul lu mu ni moo gën loolu mu dellu si na suñu borom gisuma dara mu ne ko dellul mu wër ba gis xaj bu mu taxaw di ko xool lu yàgg mu ne ah ma ko yóbboo ngir foog ne maa ko gën kon suñu borom dana ma ba ma dara wala mu ma safara dem na suñu borom gisuma dara mu ne ko du dellu si waaw ndax suñu borom dafa bëggoon ba far xaj bi yóbbu ko daal ne ko cas mu naawee ba weesu ñeenteelu asamaan ba juróomi asamaan xelam dal mu dellu si ko fa dellu ne suñu borom gisuma mu ne ko si nga xaj boobu boo ko indi woon ngir foog ne yaa ko gën doroog yaa na la gën ba dina la gën kon doomu adama nay jullit bi nay nangu ngàntal lépp jullit te ko te rafetul da ko taawil maanaam nee na xëy na nangam ak nangam tax loolu mooy jikko diinu lislaam sant maanaam rek nu mu anam bu mu ko rafetal dañ boo gisee nit mu jëf jëf joo xam ne wala mu sos sos woo xam ne seet nga ci fukki anam yi juróom-ñeenti anam lépp muy lu ñu jam jëfam nga gis ci benn jëf benn anam rek mu jëf jëf bi mu ñu jëmul na nga anam googu taxaw ca boo bëggee mucc gaa ñu xam ne ñoom lañuy wax ci bu kaaw xam ne dañoo résumé yoonu tasawuf indi seen i jikko seen melo ngeen mag ñi bind ci tasawuf yëpp dañoo rëdd xam ne maraaxil yi am ci nekk boo ko tolloo bakkan boo koy fóot fu mu fi toll rek ak na muy tudd ak couleur ba muy amee ak melo muy amee ak lam lay sant ak lam lay duggaloo ak lam lay bañ loo doo ngay àgg ci an nafsul kaamila <laughs> boo seetee nag suñu boobu dikk na ci masala mi ma doon wax léegi yaraw na anfusahum duunal wara abadan wa annahum lam yaliqu bil karamaati ci yàlla ñuy àgg ci yàlla dëgg seen bopp rek lañuy xool di xool ayib yi ak yàqu-yàqu yi waaye amuñu soxla ci mbindeef yi ndax ëllëg seen jëfi bopp lañ leen di laaj biñ leen laaj jëfi ñoom te it li ñuy jege jege yàlla ak li ñuy góorgóorlu góorgóorlu wóoru leen ñoo gën fenn wala déet boo amee <clears throat> jikko ji ma waxoon léegi ah. loo gis ci nit da nga mën koo rafetal nga rafetal ko boo ko mënee kaamil mën ko kaamil mooy farata ci yow te bu ko ko jàppee ko xeebi tax xamuloo moo la gën a déet xamuloo jéggal nañ ko wala déet yow am ko sax dunal a abadan wa annahum lam yaliqu bil karamat ñoom jàpp ñu woon sax ne su ma ne li seen bopp jëluñu ko ndax li wax rek yaroon am a abadan seen bopp rek seen ay bay na leen sëkk sëkk sëkk ngelaw la suñ doon war a abadan seen bopp rek seen ay bopp doy na leen sëkk sëkk sëkk sëkk li ma waxoon sànq ne ki yàqu du gis ëkk dina ci bëtam waaye day gis pepp suuf wane ci bët moromam ki defaru xamul jéemul a xam ndax kii am na ëkk ci bëtam wala déet pepp suuf boobu ne ci ci bëtam moom moo ko jaaxal mooy problème am moom lay jéem a dindi المؤمن من أمنه المسلمون milleti al muminu man aminahu naasu ala dimaihim wa amwalihim wa aradihim gëm yàlla mooy nga xam ne nit ñëpp wóoru nañ ko ci seen alal bu leen faral dara nañ ko ci seen deret du leen gaañ du leen dagg du leen jam wa aradihim wóoru nañ ko ci seenu der duñ duñ ko wan gannaaw mu ba mu teg ci lu ñaaw ñooñu ñooy ñi gëm almuslimu man salima musliman min yadihi wa lisaanihi jullit mooy ki nga xam ne nit ñi mucc nañ ci loxoom du leen tooñ du leen dóor du fab seen alal du leen mucc nañ ci lam ñoom du leen xas du leen ñaawal du leen gaaral du leen wax dara du dul noonu wa charru naasi man ittaqaahu naas ittiqaan man waa lisaanihi ci yéet ci nit ñi mooy ci nit ñi waxtandiku ngir ñaawug lamiñam dañamee ko ndax lamiñam dafa ñaaw dafay taxaw fii xas ma tànc ma wax ma lu bon sallallahu alayhi ne nag ci nit ñi mooy kooku gëneelal doomu aadama mooy jéggale mooy wan gannaaw sàggane ay bi ñeneen ñi mooy ku la tooñ nga jéggal ko fekk mën nga fayu mën nga ko daaj sax li mu di nekk <coughs> li nga xam ne moo doonoon dem bi maanaam mawdu bi moo di al mujtama société bi da wax ban waxtu la personne bi waxtu bi mën na moom muy baax boo xam ne médecins yi nga xam ne ñoo daan faje ñoo ñoo feebar kon nag yemale waxtaan yi fii ah ndax dam na nekkoon laaj yaatuñ si kat sam def nag benn laaj wala ñaar nañ kat seen gën a jot kon naa mën a tontu rek ah euh, jërëjëf sëñ ñu dellu rek di feddali suñu ziar ak suñu mbégte ci muhaadara bi rafet na lool yàlla na yàlla may ak dugg ko bi jaay seen wujju ah comme ni ko bokk xamee